Coco Pulp, un soin délicieux à l'huile de coco pour une peau lumineuse, lisse et soyeuse. Ladies and gentlemen, comme vous le savez, Marodi sélectionne les meilleures vidéos du Sénégal. Alors, téléchargez vite l'application. Papa, hmm. est-ce que Tu nga sama idole tu as la. exemple nga pour man décision bu may jël dama la ciy roy. te yaakaar naa ne tamit am na foo ma teg foo tegul kenn. fi ma la teg teguma fa kenn yow yaa ma gënal sama bakkan bii yow sala d'accord léegi man lenn rek laa bëgg xam. sama mhm. feebar bi dafa am loo si def. yow sa feebar bi la daloon sala loolu lu rëy laa ci def sala sala bi nga feebaree adduna bi yëpp nit ku weex nit ku ñuul ñëpp a jóg kenn mënu la faj man maa sol sama daal bi man sa baay ak ni ma xamee ni ma mel dox. lijjanti def samay pexe ba nga wér peng. Ah, def say pexe kon yow daal su ma la déggee baax feebaru Edu bi tamit yow la. Sala man lépp lu ma mën a def yow pour nga wér nekk ci jàmm man dama koy def. mais dama koy def ba tax nga teg ma souffrance bi may dund papa yow ak fi ma la tegoon yow bëgg bi ngay woote si man kon nekkul dëgg si yow yow li may dund yëpp sama ménage bi souffrance yi. may nekk ci problème saa su nekk yow nekk yaa ma ko teg di si teg sa bët nii di ko gis ba pare defu la dara. yow Sala loo bëgg a wax nii yow Sala man sa sëy bii li ma ci daj yow ak Ibou yor ko yor la di ci def lu nekk pour nga nekk ci jàmm ak sa borom kër man dinaa jóg di leen yàqal di leen liggéey ak bëgg bi ma la bëgg kan moo la wax lu mel noonu ban seytaane moo ñëw bëgg a dox suñu diggante. benn seytaane bu ko dox ah, suñu diggante benn seytaane bugg ci dox sama yaay moo ma ko wax te bu taxawee wax ma ni c'est parce que am na fu mu ko teg sama yaay ban raison la am ban la am ñëw di wax lu sa yaay bugguma sa yaay musul teg ci sama der bi lu rafet ma wax la ko encore une fois nga dégg ko yow mës nga dégg sa yaay wax ci man lu rafet sa yaay depuis bu ñu tàggoo ba léegi mu ñaaw lu nekk teg na ko sama kaw der bii loolu amul liggéeyuma la yow ak sa jëkkër ku la ko wax daf lay nax xaw loolu amul de. xaw ma amul mais lenn daal laa lay xamal sama yaay li ma bu fekkee ni dëgg la yow yaa ko def. xamal ni yow man pare naa si yow. dama lay bàyyi àdduna ak àllaaxira loolu wax bu ñaaw la man du ma jóg di la liggéey du ma la def lu metti j'espère que amul du ma ko def si dëgg liggéeyu ma la de bu dee loolu la doo ma bàyyi. man nit ñi moom di moo ko desal. di ma jéem jaxase man ak sama dom ta diko mi ngi beugal la la la ki nak diko xam daf may seen rek mais xam man ñoŋ de du ma mag muy lek xale di ma yorul waaw baax na waaw bañ dem ci ma ñëw tiens ça xawma da ngay noppali ko xawma da ngay melo yow lan moy sa problème sama diggante yow wax nga ba yàqu sama diggante sama dom sala nak nang ci manu loolu la bëgg xawma nak kañ nga ma ñëmé yow bay dugg ci sama ya, affaire dem bëgg nga nopp ci complètement bay ma bay ñu suñu diggante tout tranquille ñak jom nga ñak jom tax ngay ñëw man ngay wax ñak jom diko sa diggante ak sala doxuma ci lu tolli ni ay ni sa nekkin rek la ko netali est-ce que yaa may dégg té buma fat nak man nan la nekké xamono nekké yow ndax xamoo ko ah. li ma moom nga bëgg xam noonu. waaw ah, baax na yow ku ñàkk xorom nga. ñàkk fayda bay bëgg a dee. lan mooy fayda. ngir yàlla. mu taat sama kër. lan mooy kër. lan mooy kër. ña ngi yow wér na. Badou waaye yow. looy woyoo qu'est-ce qui xamoo. ñàkk jom ña doo réglé. non sérieusement dina wax ak sala parce que yow. sala lan nga koy wax il faut ñu interne la il faut nga am ay këyit dof. non non parce que li ngay def wuro yow yeen këyit ngay am bu boobu. non non non déglu ma rek. en plus gis nga li nga def yëpp mu jul fenn gis nga yalla mom mo yor le dernier mot. deug <laughs> la gis nga hôpital bee. mbeug nga xam yalla yalla bay xool la nga ca def yëpp yëpp na ha xam ah. nga ne bon dëgg te xam nga ni mako def. gis nga xolal dof. yow yow yow lolu lolu non lolu non ni mi ngi son crime affiche la yow wéeru loolu affaire la voilà beneen yoon. wala génn kii looloo na mu amee alal la su ma nettali sala looloo ko métti. waaw d'accord waaw. sa alal ñu ngi ko alal moom alal. alal moom alal moo la métti. alal ku nekk ak ni koy amee. sa jëkkër ngay laaj moom nan la amee alal. d'accord xam naa yow nan nga amee alal yow sa yow ak say gaar. waaw picc bi la gis taat nag day bëgg morom. may ñu kii moo ñàkk morom.

inclusive. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sir. Ya, dama woo téléphone. ça va yow maa ngi soog a dama laa war a. su Why you see? See kii yow la. du li nga fof, defal nañ ko ma expliquer la yaay. Siir yaa ñàkk jom yow si sa xabar xabar gi nga xabar xabar ñoo ko sama kër naan man xam naa sa jabar nekk yow kon sir li mo taxon nga sa wax ju rëy ju bari jooju Sir yaa ma bet. Sir yaa ma bet. yow nak moom nit du ñàkk jom ba gën laa ñàkk jom yow kuma bet nga yow. xaaral ma la woon fii nag yow nam yaay xanaa du lii nga mësoon a bëgg ko maag siir ñu nekk. Eh, xam nga lu ma lay xamal ba ma bëggee nga nekk ak siir du ci anam bii damaa bëggoon mu takk la ci farataas sunna su Muhammad yaa ngi may dégg waaye du ci anam bii yow nag siir ku manqué nga yow. yow du li nga xool maa ngi nii toog mi ngi nii toog. dama eh, naa ma la may wax nga di ma tontu déglu ma laa la wax yow siir yow yaa bon yow siir magi dem amuloo loolu def lu indi fi keneen fii ci biir fi nabu inquiété wu jógee kër yaakaar yaa ngi souffrir sa biir kër ndekete yow daal yaa ngi sa ah, ku ma bett nga ku ma bett nga yow Sire xaar ma woon ci yow gis nga yow nag ku yées nga yow yaa a yées ñëpp nag benn classe amoo benn fulla amoo dañ fi def dara nekk dañoo bëggante rek. ci lu ñu nekk gis nga yow aw pour wax ak yow lenn yaa ngi may dégg man sama doom moo ma tax a jóg yow maa ngi dem sama yoon bu ñëwee ñi ngay lewatal bëgg. yaa eh merde maa ngi dem bu ma ko yow moom toogal fii di ya, ñaka lamsal dégg nga. Ya, ngi la Ya, la ah dama laa gis nga sa liggéey bi yëpp ya ko war. yow tamit sama toogaay fi ya ko war ya yow li moom xew mi yan nga ko de. trop gisoo fan yii nelaw ah sa pàcc nii. ak sa yéelu sew. damay étewu. étewu yow li waroo ko yóbbu de. yow est ce xam nga ne boo doon xar yow wala nag kenn du jënd do kenn du la de. sa tànk yi xanaa yow mosoo daw. si gëju ma dawi sax. Ah. kañ événement Layla Layla nga may ay. eh. <laughs> yow xamoo li nga war a wax ak li nga war de wax. kii gémmiñam gi suñ ko ñawulee ak uude du dina wax lu ko rey. est-ce que. monsieur man waxuma la waxuma ko. Eva mi nga xamante ne heure bi waroon na ko fekk. fekk ba léegi maa ngi koy. waaw léeg-léeg bu la fi xaar nan dem suñu yoon. waaw mais suñu demee tamit nan la fay ah, xamee. problème am moo tardé. waaw oh, mais moo tardé. waaye man sama problème mooy Momo. Momo xanaa lu dem. yaa xamoon ne Momo fanaanu fi. Eh, Momo fanaanul ci kër gi. Momo day xaw ko ko woo di ko neexal pour ñu dem. billaay du ko wax 무거워. 음. 무가워 nii essai fu mu toll nii loolu la métti moom. ah kon mais kañ lan nag lan la ñuy def kaala ñu def kaala ñu def. Eva mii nii laa xamul yëpp. tàggal ay mag yi ngay di tudd. lan la lan yow lan la. yow lan la nga ci lan la nga ci nii lan la lan la lan la Béti laa doon xeexal wax leen di xew. lu xew yow wax leen ma bu leen ma rey lu xew. lan nga jëlee Béti lan nga jëlee Béti. waaw lan moo xew. lan nga jëlee Béti wax lan nga jëlee Béti.

may nu jàmm waaye ngantam caga la nga ni la xot mii di caga bu rëy bay bu góor sax xotane ah. yor sa ñaari jabar di cagatu xanaa yow saako nga la woon sa biir biir noonu fay defal yu bon yooyu eh, yow waxal lu la neex waxal lu la neex ba kenn laa la laaj ah, eh, loolu sa wax yow jeeg bi moo tax ngay wax li sa sa grande sœur eh, yow li sa wax yow jeeg bi moo tax ngay xas sa grande sa gën laa gën sa ab yow su ma xasee ma def ko lu bon waaye yow Eva li mu dëgg la attends je t'explique

ñam nga de yi lañuy tok jigen jar na sa jabat di la mbejato jigen rek la moy ak fayda nga de yow bu la dal lu yow ma ngi reccu lima bokk ak yow ndey ak bay workat bu bon bi nga doon gis nga gis nga ben indi ngeen fi benen wax leneen nga ni ha li lepp ko ko fi indi mi ngi ni nak mi ngi ni nak mi ngi ni bu ray doomu japp xam lan lay wax ci jigen li jigen jam na massa ya. massa rek ah massa rek massa rek bëgg a jigéen bay rey sa jabar bëgg a jigéen bay rey sa jabar. macha allah. su daf ko nànk rek su daf ko nànk rek xam naa jigéen bu taxee doomu jàmbur ji. mu kenn ñaanu ko yàlla dina xam lan la yor. yéenewu ma ko lu bon yéenewu ma ko lu metti waaye duñ ma reyal sama taabu góor yi yéegal ko nànk rek yéegal ko nànk eh. rek. yéegal ko nànk rek. lii mos naa ko awa demal nànk rek defal nànk rek. li mu def dara rafetu ci atelier li mu def dara rafetu atelier bureau nan lañ koy tërale jigéen xanaa moom saako la laal doon baayam du yoon baayam la doon du yoon ànduma ci baayam la doon waaye nag yow munoo xas kenn parce que li nga nekk ñëpp xam nañ ko xal picc yi sax xam nañ li nga nekk waaye teguñu ko xale yu ndaw yi sax dañ leen di joobe nañ ko gundaaj <laughs> di kun gundaaj ci mel ni dof kuy dëgg taaj Pod yaa may gis man la Mor mais Pod xamal li nga def muy lan mais nan nga def ba yokkoo su booy bi ci bureau bi man ma looy sans problème ah. non c' est pas le moment yaa ngi mais pour c' est le moment c' est moment yaa ngi dégg bien sûr moment ah war a xam ne Eva dafa muus moo la gën a muus loolu bëgg daf xam na ko il est intelligent dafa bokk ci famille bu garaaw sàcc ndënd yomb na mais foo ko tëggee mooy problème bi loolu mooy si problème tey et puis di kal lii yëpp day jeex après di kal lidahnya il faut nga utiliser prothèse dentaire li ngay ràgg mu beri ci boppam si ce n'est pas un

Pod. Pod wax ji bëri na xulloo bi bëri na xasante bi bëri na dóorante yi bëri na li fi xew ñaaw na de li fi xew ci kër gi tey yii te yow xam nga ne duma borom benn nopp ci sa gémmiñ laa bëgg a dégg li li xew wax ma li xew exactement te bu ci wàññi dara yaay yaa xam nga ne am na dina am kersa pour aborder ak yow yenn sujet yi mais tamit yaa ak lépp lu mu demee yaa yow xam nga ne sama jabar je les respecte d'accord j'ai eu juste un moment de faiblesse yaay tout pod ay pod You pod da bëgg jël papa pod Tu da jël papa you là? wo dara ci sa papa yow pod You mba xam nga ne gis nga man gis nga xalé yi duñ la fi xaaral ju bon là? de di souffrir. ñi bo continuer ni dinañ dem bayila parce que man lima mëna muñal sa bab xalé yi duñ ko muñ dé xalé yi légui duñu muñ li mu yow li lan mba jamm la li man ci keneen la ko doon xaar waye du ci yow ha go da nga am maîtrise ci sa bop bo topé xalé yi nak dinañ tass sey bi defu ñak fayda yi yow nga am sa jéeg ñaari jéeg yu mot sëkk ñu bëgg la ba gëmewuñ la lu nekk ñu di ko daj pour te faire plaisir nga nekk fi di def yëfu ñàkk fayda yi eh dama ne gis nga boo tasee sa sëy sa affaire la d'accord jàppale ma rek ngir yaay bu ñu génn kër gi dinaa ci def lu ma mën waaye lii bu mu amati dégg dama bëgg nga am maîtrise ci sa bopp lii lan la

def nga ma luma ma géntul woon dul mën a gëm ko waxoon dara gënul kay fi ma teggo teggoon sóoru ma lii ma consulté madame Dan, nga suivre ses visites normalement à cette question, Certainement, elle va passer d'autres analyses. Je suis vraiment désolée, Et pourquoi pas poursuivre la grossesse. Hein? C'est trop risqué. Il est préférable qu'elle avorte. Dans ces genres de cas... Non, excusez-moi. de sangue, no meu, sai sério, doo xam eggal. É, siir amul doomu adam bu nekk sur terre ba mu ne ma naa dindi ba dindi ko dindiwu ma sama doom siir dindiwu ma ko. mais nga def naa essaye même pas de me convaincre. convaincre ma la defal naa nga ba pare. siir sama doom. waaw ah, bàyyi jooy xoolal bàyyi jooy après dañ si wax waaw. 아, 내가 죽을, 죽을 일단 그래. bienvenue. Merci. Je euh, ben, euh, ben ah, double chambre. Ben double. d'accord vous pièce d'identité s'il vous plaît. Ah <laughs> ah non. Togo? suba doo bay maman diko ko togg rek. man dama wax rek yow man may togg dama bëgg a togg. ma gën ci togg. bàyyi maman diko ko togg elle a l' et puis les vieilles marmites font les bonnes sauces. donc ça veut dire que man mun ma togg. non bien sûr yow. Samy c' est bon c' est bon waaw bul ma toggal léegi ba ci jeex. jeex naa ma nga toggal sa papa. ka mooy toggal moom. man. ki da ngaa mos gis mu togg. ki da bu toggee jëkkër jee tax. ma bu toggé dal jëkkër jëta su commencé nga àggale. jeex na wax ni déet. waaw baax na waaw léegi xam nañu def. Euh. ma bàyyi la nga siitu ba ci kanam. jël sa temps mu toogal la. man ni man ni. boobu naa ci. ah moom seen xorom ba ci kanam. Ah, ay xale ngeen. mais eh, gis naa sànq Elena di la woo nga moo soof. xanaa dafa xam ne yaa ngi fi. daa xam en tout cas une chose est talu mooy taluma ko quoi. instant li ma fi indi laay lijjanti su ma ko lijjantee ba pare après ma dem lijjanti ay chichi yu am Dakar. la ma toog moo tax. yow da nga tof wala ki may waaj takk nga ne ma nëbu ma ko su ma ko nëbul kan laay nopp. sa xel bi ngay ping pong nga war a bàyyi.

d'accord Oui mon. déglu ma bu baax te na tout le personnel de l'hôtel ok na ngeen suivre le pas à pas ok Je me ma bàyyi dara ci moom ma compte rendu tous les jours ok ok waxoon dara gënul kawe fi ma la tegoon soruma lii bett nga ma yow li nga ma def metti na ma at fi ñu jaar yëpp ya lii mënuma ko woon imagine sama bopp dafa jaxasoo may gis ay image yow lu xew yaa ngi fi ba tey maa ngi toog ah lenn bëgg na la ko yëgal hmm? ñi li fi xewle gis nga ko seen mer gii fagul seen mer gii fagul tay li nga ñam fi bo yégee ci kaw bu la sasatoowee du baax dé du baax dé leen dal laal am luma lay conseiller nga def ko moy nga sét fofu fanaani nga dem fanaani ba seen mer gi nga dellu so ci kër gi am fi waye ñi ma gis bo fanaanee ci kaw bu la du ci yow de ah waaw baax na man dama lay wax dama lay sama xalaat rek comme noonu nga ko gisee baax na ngay yow li nga ma def metti na ma ya ko sama dafa may gis ay lan la doyul ba nga da ngay wuti leneen mu xam yow Eva jugal ma ndox bi li def ni yow tamit hmm? baaxul ci yow jugal am na la am defal danga wax ba ma jox la lépp bokk ak yow benn monsieur Lopez papier Marim Diop bi paré non ah bon. mun na embarquer semaine prochaine. destination. Inde. Inde. Mboy tu as très bien choisi. d'ailleurs je moom li xam da koy parce que dafa bëgg affaire Inde. yooyu elle aime la culture indo quoi. damay ragal mu dem ça. voilà <laughs> bañ a <laughs> c'est bien joué c'est bien joué comme ça mu abal ma quoi. Mais j'ai un petit souci, monsieur Lopez. Souci Son fils Doudou. nga defe ni bu toogee gisul de du lancer benn recherche. <laughs> Euh, Mario. dafa ne xamatoo ma quoi. situation boobu géré ko bu ah bon. vois. Evet. Ah. gis nga texte bi ma bind nii moom laa bëgg nga recopier ko si feuille bi ma la jox virgule bu ko ci bàyyi restaurant. waaye dundal nga may xool Écris. gis nga lettre je ai fait comprendre que ni man lako denk ah super. géré situation ok ça marche. Ça ça marche. pas le problème. Mhm. en fait euh, ñu un Louise. Mhm. c'est Eva qui était l'obstacle pour que Pod signer ce fameux projet là. Mhm. Mais elle a réussi à la faire quitter l'entreprise. Ah bon Si. Bonne nouvelle. Actuellement, elle gère la situation. Vous okay. Donc, ne pas. Oui, même pas. Euh, elle est bien, hein? est-ce que moi nous la savons <laughs> Mais il faut la surveiller. D'accord. Il faut bien la surveiller. Il n'y a aucun problème. Non, quoi, tech Shock Mario. Amour, ben problème. Je vais la surveiller. Je Kaawusee war nañu yéeg. waaw surtout. voilà. ñu lâche bon maa ngi ñëw dem ah. déjà oui mais xaaral rek. da fàtte ni kër gi amatul jég. te kër gu amul jég ña fa toog du ñu reer xanaa. waay yàlla rek monsieur Lopez. bonne soirée. booy booy gëm yàlla juddoo googu maa ma gëmal yàlla. te ñëpp laa yemal wóoluma ci kenn kenn kenn. guerre des saf mondial je prends la situation en main ñun ñëpp la surveiller Saint-Louis c'est la plus belle ville du Sénégal loolu ngay wax ndànk teranga sénégalaise de bokoy koy ndar gi motax ñuy wax ah, du bétalé. ils sont très hospitaliers même ce cadre est très agréable. C'est pour ton père. Excuse-moi, je ne devais pas parler de lui. Non, Graoul. Je ma fi fait indi su au séminaire Dans nañ talk, ay heure nak di waxtaan C'est pour dis-moi, c'est pas la contrôleur fiscal avant que je député Mais ça ne de nëbb na ma lu bari mais bon je respecte ses choix. en parlant de choix tu n'es pas le choix boo je ne peux pas sax comprendre ba koy respecter C'est ton choix d'avoir voulu te suicider. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'est passé par la tête en vrai Je ne sais même pas quoi te dire. Et je m'attendais à cette question aussi. Mais explique-moi, parle-moi. Il Faut que je comprenne quand même. Si Momo, je souffrais. Et c'était dur. Ben issu rek la Amon c'était fuir est très loin sam pap moo nekkoon sama lépp man moom rek la xam ginnaaw mom yow la et tout ce que je te demandais c'était d'être présent mais tu ne croyais plus en moi j'ai été tentée La suite

géntul woon mën a gëm ko waxoon Pod lan moo ko manqué ba mu jaral ko mu koy wuti feneen lan lañ ko defaralul Eva pot ñu ñaar ñëpp la trahir mais instant bi xamal lan moo am solo mooy sa santé ak sa santé doom li ci des nag ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. lan moo la doyul ba nga jug naan da ngay wuti leneen feneen lu tax mu doon ku ma xam lu tax yow tànnu loo keneen. yaa tax ma bàyyi ñëpp bàyyi samay mbokk yow nga fay ma lii. ma jox la lépp bokk ak yow benn famille wax ma la